الحب اللي عمره ما يشمت asalaamaaleykum mbokki déglukat yi seen mbokk seen xarit pasteur Ahmed Fall moo dellu siwaat ak yéen ci sunu émission kàddu gu sell gi te di leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di dellu di sant yàlla sunu boroom ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist asalaamaaleykum sunu mbokki déglukat yi sunu mbokki auditeurs yi seen mbokk seen xarit pasteur Ahmed Fall ak pasteur Balla Konaté ñoo dellu siwaat ak yéen ci sunu émission bi ñu dippee kàddu gu sell gi ñuy nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di sant yàlla sunu borom mi nga xam ne moo ñu may ñu tal ko ba teew fii mën a ubbi téere bu sell bi nga xam ne moom la ñuy yox téere bu sell bi nga xam ne fi la ñu jàngalee boppam fi la wone boppam ñuy jàng ci téere bi ngir mu nekk yokkute pasteur Balla ma bàyyi la nga nuyoog auditeurs yi balaa ñuy dugg ci waxtaanu tey bi
jërëjëf pasteur Ahmed maa ngi lay gërëm di la sant di gërëm di sant yàlla sunu borom moom mi ñu may ñu mën a fekkee bésub bi bésub tey jii ba mën a teew ci jataay bi di nuyu mbokku auditeurs yi di ñaan rek yàlla wàccee ngëneelam yi ci kenn ku nekk ci ñun pasteur Ahmed.
amin jërëjëf pasteur Balla jërëjëf ci sa teewaay pasteur Balla xam nga fan yi ñu génn yépp sunu émission ñi ngi ko laloon ci téere bu sell bi ñi ngi ko laloon ci kóllëre gu bees gi tubaab dippee nouveau testament ci bataaxal bi yàlla sunu boroom jagleel waa Rome dëgg la sax waxtaan nañ fi lu jëm itam ci wareefu waajur ak wareefu doom digganteem ak waajuram wante dama bëgg ñu wéy di jàng ci téere bi nga xam ne mooy bataaxal bi yàlla sunu boroom jagleel waa Rome ñu jàng ci aaya fukk ak ñaar ci saar benn ba ñaar lii la yàlla sunu boroom wax kon nag mbokk yi gannaaw sama yërmande bari na noonu maa ngi leen di ñaan ngeen jébbal ma seen yaram wépp na seen dund mel ni sarax suñ may defal man yàlla sarax su sell te neex ma loolu mooy njaamu gi leen war bu leen àddina jay waaye yeeslu leen ci seen xel ba soppeeku ngir mën a xam bu wér sama coobare di lépp lu baax neex ma te set yàlla sunu boroom pasteur Balla mi ngi dénk fii doomu aadama mi ngi dénk fii doomu aadama tàmbalee ko ci wax bu am solo mi ngi naan jël leen seen bopp jël leen seen yaram ngeen def ko mu mel ne ab sarax soo xam ne da ngeen ma koy jéggal maanaam jël leen seen bopp jël leen seen yaram ngeen def ko sarax soo xam ne da ngeen ma koy jox man maa ko yeyoo jël leen seen bopp ngeen def ko sarax te ngeen jébbal ma ko waaw waaw pasteur Ahmed aaya bi nga jàng nii aada aaya yi nga jàng nii yu am am solo la dégg nga fi ko yàlla sunu borom tàmbale mu ngi naan kon nag ginnaaw sama yërmande ci yéen ah ndaxte wax nga ko sànq bi ngay tijji waxtaan bi am na yu ñu waxtaanee woon ci ginnaaw yoo xam ne ci téere bi lañ ko tibbee yàlla tënk doomu aadama yépp ci xeet bu ñu mënta bokk ci jamono ju ñu mënta dundee mu tënk leen ci bàkkaar bi nga xam ne moo leen noot yàlla wane yërmandeem jaare la ko ci Seydina Isa Yesu Krista mu dee ci banta bi saraxe boppam ngir ñun ñu mën a mucc ngir doomu aadama yi ci xeet bu ñu mënta bokk ak ci jamono ju ñu mënta dundee rek. yàlla man leen a boole ci loolu léegi nag yàlla di dellu nag ni kon nag ginnaaw wone naa yërmande bu rëy yërmande bu toll noonu jëmale ci yéen li may xaar ci yéen léegi mooy ngeen jébbal ma seen yaram ni sarax su ma neex kon ñu gis ni ngir ñu mën a def li neex yàlla faw ñu jébbal suñu bopp yàlla waaye ngir ñu mën a jébbal suñu bopp yàlla faw ñu jaar ci yërmandewu yàlla te yërmandewu yàlla mooy yeesu krista mi nga xam ne dafa joxe boppam ci banta bi kon dañuy gis ni dëgg-dëgg pasteur amet ay jeego la yàlla li mu bëgg mooy ñu jébbal ko suñu bopp ngir moom mu man ñoo mooñ ngir moom mu man ñoo jëfandikoo ni nga xam ne noonu la ko bëggee waaye ngir loolu mën a am dañu war a fàttaliku yërmandeeg yàlla bu rëy ba muy seydina isa yesu krista pasteur waaw pasteur Balla yàlla sunu borom daf ci teg ne loolu mooy njaamu gi leen war yàlla sunu borom mi ngi wax foofu doomu aadama mi ngi ñuy wax ne kat jël leen seen bopp ngeen defal ma ko sarax yokk ci ne lu mel noonu boo leen ko defee loolu moom mooy njaamu gi leen war dafa mel ne yàlla sunu borom mi ngi ñuy wax foofu ne li nga xam ne moom la ñëkk a séentu ci ñun du luy jóge sunu poos ñu koy def du ay julli yu bari du koor gu bari du saraxe su bari li mu ñëkk a séentu ci sunu bopp mooy ñun ñu jël sunu jëb jël sunuy cër jébbal ko ko waaw waaw pasteur Ahmed noonu nga ko junjee noonu nga ko waxee noonu la ndaxte xam nga euh, boo bëggee neex yàlla da ngay bàyyi yàlla jëfandikoo la parce que moom moo xam li ko neex xam nga boo jëlee sa bopp nga jébbal ko borom bi day tekki ni moom moo moom léegi sa sa sa sa jëmm ca kaw ba ca suuf kon yàlla léegi moom mooy jël say loxo da ca jëf la mu bëgg moom mooy jël say tànk di ci jëf la mu bëgg kon wax na dëgg jaamu bi njëkk jaamu bi war jaamu bi sell mooy ma jébbal sama bopp yàlla xam nga bu ñu jëlee misaal bu ndaw pasteur Ahmed tey boo génnoon nga gis benn waajoo xam ne day yalwaan nga jël sa billet 1000 francs wala sa billet 500 nga sarax ko waa ji xam nga doo topp ci ginnaawam naan ko 1000 francs yi nag da nga ciy jënd paquetu biscuit da nga ciy jënd omo da nga ciy jënd saabu da nga koy bàyyee 1000 francs yi moom mooy xool nan lay jëfandikoo 1000 francs yooyu jëmale ci li mu yëg ni mooy li gën ci moom yàlla loolu lay xaar ci ñun bu ñu ko jébbalee suñu bopp léegi nag du ñu ko topp naan ko samay tànk kat fii la jëm samay loxo kat lii lay def samay bët kat lii lay xool jébbal nañ ko yàlla ni sarax yàlla nag mooy xool léegi la gën ci suñuy tànk mu doxloo ko ko la gën ci suñuy loxo mu defloo ko ko la gën ci suñuy gët mu xoolloo ko ko pasteur Ahmed.
ndax loolu pasteur Balla mën nañ ko tuddee nit ku def loolu mën nañ la tuddee jëmm joo xam ne da nga jeex ci yàlla.
wa wa ba takk nag takk nag sa day tekki rek ni yow amatoo amatoo lenn loo xam ni bëgg-bëgg la wala sañ-sañ la te tibbeewoo ko ci yàlla ba noppi bëgg-bëggu yàlla yi mooy say bëgg-bëgg sañ-sañu yàlla yi mooy say sañ-sañ kon yow da nga seey ci yàlla ba jeex takk loolu moo tax gis nga aaya bi sànq mu ngi naan bu leen àddina jay waaw waaw ma jàngal la ko sax mi ngi naan bu leen àddina jay waaye yeesu leen ci seen xel
yees lu leen ci seen xel ndaxte àddina moom xam nañu ay mbiram surtout nag bu jayee doomu aadama bi kooku moom musiba la ndaxte day tëñëx tëñëxi di dem rek boo waxee mu ne la maam sama maam moom sama bopp lu ma neex laay def de toute façon lii ñëpp lii la ñuy def yàlla mu ne bu loolu àddina ku mu jaay la waaye yees lu leen ci seen xel dellu si leen ci seen bopp te ngeen xam ne li gën ci yéen man maa ko xam li baax ci yéen man maa ko xam kon jébbal leen ma seen bopp te bu ngeen ko defee wax dëgg fa yàlla pasteur Ahmed du ngeen ko rëcc.
te pasteur Balla yàlla sunu boroom mi ngi wax li nga xam ne moom mooy tukkee ci jëmm ju def loolu mi ngi wax ci saar bi naan boo leen defee lu mel noonu da ngeen xam lii sama coobare.
waaw di nga xam lii sama coobare ndaxte xam nga sànq da nga wax baat bi mooy nit ki nga xam ne dafa jeex ci yàlla dafa jeex ci yàlla takk xam nga nit ki jeex ci yàlla wax naa ko sànq mooy ne bëgg-bëggam ak ak coobareem yépp ci yàlla la koy tibbee kon kooku du def te te wéetul ak borom bi xoolu ci ndax li may def nii lan la ci kàddug yàlla wax du xalaat te toogul ne man li may xalaat ni lan la ci kàddug yàlla wax kon bu ci bu buy dellu rek ci kàddug yàlla mu ngi dellu ci yàlla kon lépp li muy def day méngoo ak li nga xam ne mooy bëgg-bëggug yàlla.
jërëjëf pasteur Balla kon yal na yiwu yàlla sunu borom wàcc ci sunu kaw ci turu Seydina Isa almasi bi Yesu Christ ba ñu jël sunuy jëmm jël sunuy bopp jébbal ko yàlla sunu borom mu doon ab sarax kon mbokki auditeurs yi ñu déglu tuuti cant balaa ñu ñëw ci ñaareelu xaaju waxtaan wi jërëjëf mbokki auditeurs yi ñuy déglu fii ci sunu émission sunu programme kàddu gu sell gi pasteur Balla may wéy di jàng ci téere bu sell bi li ñuy yàlla sunu borom wax yàlla sunu borom mi ngi ñuy wax ci bataaxal bi ñu jagleel waa Rom ci aaya fukk ak ñett saar juróom-ñett ba ci juróom-ñeent bu leen ameel kenn dara lu dul mbëggeel ndax ku bëgg sa moroom wàccoo nga ak yoonu Musaa ndaxte ndigaale yàlla yépp yi demee ni bul njaaloo bul rey nit bul sàcc bul xool li sa moroom bëgg nga koy sàkku walla leneen ndigaal lu mu demee noonu wàcc yépp mi ngi ko ëmb ci na nga bëgg sa moroom ni nga bëggee sa bopp ku bëgg sa moroom doo ko tooñ kon ku wéy ci mbëggeel matal nga yoonu Musa matoo nga ak yàlla pasteur Balla loolu la téere bu sell bi wax nee na bu ñu ameel dara sunu moroom lu dul mbëggeel te nee na képp koo xam ne bëgg nga sa moroom te waxuñu mbëggeelu làmmiñ de yàlla sunu borom mi ngi wax mbëggeel bu dëggu bu nekk ci xol boo xoolee sa mbokk sa moroom ne yow nga xool ko ak bëtu yërmande ak mbëggeel nee na képp koo xam ne taxaw nga taxawaay boobu am nga lu mel noonu ci sa dund kooku wàccoo nga ak moom
waaw pasteur Ahmed euh, noonu la kàddu yàlla noonu la ko àndee te noonu nga ko waxee yàlla dafa bëgg suñu diggante ak moom ratax waaye suñu diggante ak moom bu rataxee ba noppi dafa bëgg suñu diggante ci ñun ci suñu biir mu ratax loolu moo tax mu àndil ñu mbëggeel comme ni nga ko waxee du mbëggeel nag comme ni ñu koy dëggee bëgg naa la bëgg naa la te bu waa ji nekkee ci jafe-jafe nga wocc ko fa wala bu la waa ji wanee ginnaaw nga jam ko paaka déedéet gis nga ni mu ko waxee xam nga lii charte yi la ci yoonu Musa ndigalu yoonu Musa yi la bul fen bul sàcc bul njaaloo xam nga bu ñu koy déglu dafa ñëw ci li tubaab bi wax forme négative waaye yàlla dafa bëgg ñu dégg ko positivement c'est-à-dire dafa bëgg ñu dégg ko ni daf daf daf ñuy aar ñun ci suñu bopp xam nga nit ki boo ko bëggee dëgg doo dem ca soxnaam nit ki soo ko bëggee dëgg doo dem ci jëkkëram nit ki soo ko bëggee dëgg boo gisee alalam sax muy mu sàgganee ko da nga ko koy fàttal parce que da nga ko bëgg donc yooyu la ñu yàlla ci yooyu la ñu yàlla di woo lii bu ko nit ñi tënkoon jàpp ko ci seen biir xol yaakaar naa ni réew mu mel ni Sénégal du jàpp sax ñuy am policier ndaxte bu ñëpp bëggante woon ba kenn du dem ci jabaru kenn kenn soxla woon alalu kenn loo gis sa morom yor ko nga yéene ko ko ba koy ñaanal mu gën a yokku kon du soxla ñuy am policier ndaxte def ñaaw teef dootul amati waaye nag parce que amet dafa am lu am ba des mooy ne doomu aadama bu mu mënta doon boo xoolee ni nga mel ni nga bindoo ak sa xol na mu mel di nga xam ne dëgg-dëgg charte yi munoo ko motale lu dul da nga jot ci yërmandew yàlla sunu borom jaare la ko ci Seydina Isa Yesu Krista ndaxte yërmande boobu moo andi lii dindi ñuul ñuul bi ci xolub doomu aadama muy deretu Seydina Isa sellal ko ba mbëggeel bii mën a tàbbi ci biir xolam mu koy jëfee ci ay jëfam nit ñi di ci teg seen bët jaxrang pasteur.
pasteur Balla dafa am lu am solo lu yàlla sunu borom wax ci ci ci saar bi ci aaya bi nee na ndigaale yooyu lépp wax ji moo leen ëmb na nga bëgg sa moroom ni nga bëggee sa bopp kon dafa mel ne daf ñuy delloo ne kat bu ñu jëlee sunu bopp def ko sarax bu ñu jëlee sunu bopp. jébbal ko Seydina Isa almasi bi Yesu Christ bu boobaa danañ am kattan gi nga xam ne danañu may ñu jël suñu bopp def ko sarax ngir yàlla mën a dundee lii nga xam ne moom la ñu wax maanaam ñu bëgg suñu moroom ni ñu bëggee suñu bopp waaw ndaxte bu boobaa yàlla ci boppam mooy doon suñu royukaay pasteur Ameth dañuy xool ci yàlla na muy defee na muy euh, xalaate ñuy jëfee noonu di xalaatee noonu te bu ñu royee ci yàlla loolu day yomb ci ñun bu ñu jébbalee suñu bopp yàlla ni sarax suñu dund yàlla moom moo ñuy gindi ngir ñu bëgg nit ki yàlla mooy sol mbëggeelam ci suñu biir xol yàlla ñoo nekk suñu royukaay te bu yàlla nekkee suñu royukaay lan la ñu téere bu sell bi wax ci téere wu yowaana dafa ne yàlla dafa bëgg àddina ba joxe jenn doom ji mu am képp muy seydina isa yesu krista ngir lan ngir ñu man mën a mucc ñun mais mbëggeel boobu mbëggeel mënu ko raw kon ñun bu ñuy roy ci mbëggeel boobu yàlla laajuñu nag ñu joxe suñu bakkan laaju ñu ñu joxe suñu doom mais lam ñuy laaj rek mooy ñu bëgg nit ki ba lañu yéenee suñu boppa ñun ñu mën ko yéenee nit ki wala ñu yéenee ko sax lu ko raw mais loolu nag day fekk ngay tànq ci mba te teenu mbëggeelug yàlla te pour nga mën a tànq ci teenu mbëggeelug yàlla faw nga jébbal sa bopp yàlla ni sarax suy dund yàlla ci boppam sóob la ci teen boobu bu la génnee nit ñi duñu gis lu dul ay jëf yoo xam ni dañ ciy kañ borom bi pasteur maanaam dalay def nit ku bees koo xam ne dalay sol jukko yu bees dalay sol xalaat yu bees aha voilà pasteur Ahmed loolu la nit ñi do- dootuñu la sax ràññee parce que mën na am ni yow ku siis nga woon mën na am ni yow ku iñaan nga woon mën na am ni yow ku soxor nga woon waaye boo jaaree ci yërmandeewu yàlla mi feeñ ci Seydina Isa ba dellu jébbal sa bopp ni euh, sarax suy dund yàlla yàlla mooñaat la dalay mooñaat ba boo génnee nit ñi duñ la xam ne ndax soppeeku yi nga xam ne yàlla def na ko ci sa dund te muy feeñ ci say jëf saa su ne pasteur waaw pasteur Balla may dellusiwaat ci leneen loo xam ne dafa mel ne yàlla sunu boroom daf ñu koy wax ci saar wu am solo bi maanaam lépp li nga xam ne ay ndigaaleem la lépp li nga xam ne ay chartam la daf ko teg mu dox sunu digganteeg moom mu nekkat nii laa leen bëggee nii laa leen gisee nii ngeen war a doxalee comme niñ ko waxee ci téere bi muy yoonu Musaa dafa mel ne mbir yooyu yépp yàlla sunu boroom a ngi ñuy wax ne que ah loolu ngeen jàpp ne kat dafa diis dana woyaf ci yéen ci kaw ngeen jébbal seen bopp Seydina Isa almasi bi Yesu Christ ma soppi leen bu boobaa da ngeen jël seen jëmm yooyu seen cër yooyu defal ma ko sarax te yépp li nga xam ne dafa jëm samay ndigaale dana yomb ci yéen waaw xam nga li nga wax la rek roy la rek xool ci yàlla la xam nga boo jëlee saalum saalum bu mel ni man nga xam ne dafa juddoo foofu màggee foofu ñëw Dakar su di gis soog a gis géej soog a gis géej xam nga kooku boo ne ko soobul ci géej bi nga sangu day xaw a doy waar waaye bu amee ku lu ñu tubaab bi di woowee maître nageur koo xam ne da koy jàngal fee yi maa ngi fàttaliku boo duggee ci ndox mi waa ji da lay ne bul concentré wu wóolu ma rek bàyyil sa bopp léegi nag moom moo lay tëyee di la woon ni ngay def say loxo ni ngay def say tànk ngeen di dem ngeen di dem ba bu ñu toogee peut-être at wala ay weer rek nit ñi buñ la gisee ci biir ndox mi da ngay mel ni jën parce que léegi réflexe lay doon ci yow xam nga niñ koy defee ñu nit bu ñu jébbalee suñu bopp yàlla yooyu nga xam ne daf ñu jafe woon lépp yàlla mooy ñuy wax ni bàyyi leen ma seen bopp léegi nag man ma leen koy won ma leen ma koy def ci yéen ba bu ñu demee am na fu ñuy toll def yu baax yooyu du ñu poser benn problème pasteur waaw ndaxte léegi boo xoolee doomu aadama dafa jàpp ne ndigaale yàlla dafa diis yàlla sunu borom nañu won naa leen bunt bi bëgg ngeen mu woyof dana woyof ci seen kaw ci kaw ngeen jël seen dund jébbal ko jëmm jooju nga xam ne moo leen di soppi te mooy Seydina Isa almasi bi Yesu Christ kon mbokki auditeurs yi ñu déglu tuuti cant balaa ñuy ñëw ci ñetteelu xaaju waxtaanu tey bi.
نحن نسأل امتلكنا الباب حررا قيد النفوس وارفع الحزن روح الله نحن نسأل امتلكنا الآن حررا kon jërëjëf mbokki auditeurs yi ñuy wéy di jàng ci téere bu sell bi di jàng li ñu yàlla sunu borom wax di jàng ci téere bu sell bi li nga xam ne yokkute rek lay doon ci ñun kon pasteur Balla yàlla sunu borom mi ngi ñuy wax fii ci bataaxal bi ñu jagleel waa Rome ci aaya fukk ak ñett saar benn ba ci ñaar mi ngi wax foofu naan gannaaw loolu na nit ku nekk déggal ñi yore baat ci kanamam ndaxte amul njiit lu fi yàlla sampul njiit yépp nag yàlla moo leen fi teg kon ku leen bañ a déggal ndigaale yàlla nga lànk te ku def loolu yoon dina la dab bàll pasteur bàll fi yàlla sunu borom mi ngi wax ak ñun mi ngi wax ak doomu aadama ci lu jëm ci njiit yàlla sunu borom di wax fii di ñu dénk ne nañuy wormaal njiit nañuy déggal njiit ndaxte njiit ca njalbeen ci yàlla sunu borom la soqe ko yàlla sunu borom moo samp njiit maanaam jël nit mu jiitu ñeneen nit jël nit ñu jox la ay ndombal tànk yàlla sunu borom ca njalbeen nga moom moo ko indi ba tax na mi ngi naan njiit yépp ci man lañu jóge njiit yépp ci yàlla lañu jóge maanaam njiit tubaab di ko wax fonction boobu yàlla sunu borom moo moo ko samp du doomu aadama moo ko samp ci njalbeen waaw yàlla sunu borom nag di ci yokk ne kat dee leen déggal seeni njiit ndax ku leen bañ a déggal dafa mel ne danga ma bañ a déggal waaw foofu yàlla sunu borom dafa mel ne mi ngi delloo sunu xel ci cër gi ñu war a jox njiit ak wormaal gi ñu war a wormaal njiit
waaw pasteur Ahmed xam nga aaya yu mel ni ci kàddug yàlla dañ ko far di dañ ko war a di jàng di ko fàttali waa nit ñi ndaxte dañu nekk ci jamono yoo xam ni dañu nekk ci crise d'autorité ni ko tubaab bi di waxee li nga wax noonu la njiit yàlla moo ko njëkk a fal fonction la boo xam ni ci yàlla la jóge ñu ngi fàttaliku yàlla bi mu defaree toolu Eden ba ñu koy woowee ajjana def fa garab yi jur yi mala yi tout ça bi mu pare moom moo jël aadama ak awa mu jiital leen mu ne leen lii yéen a koy jiite fii fonction wu décideur bi yéen la kon yéenay dogal yéenay dogal kon ña ca des mala yeeg ñoomin seen dañ leen war a déggal yéen parce que bu ñu leen déggalul dañu xëdd li nga xam ne moom laa wax man yàlla kon ñu jóge foofu boo ñëwee ci njaboot gi yàlla moo jël boroom kër gi jiital ko moo tax gis nga defoon nañ fi émission bu am solo ci ni xale yi war a déggale seeni waajur ndaxte yàlla moo leen jiital noonu la ko yàlla di defee nag ba mu ñëw ba ca chef de quartier ba chef de village ba commissaire de police ba ba président de la république yooyu ay mbir la yoo xam ne képp ku ko yor nit ñi dañu war a fàttaliku ni kii sañ-sañ ba mu yore ndomba tànkal ba mu yore jiit biñ ko jiital ab pàcc la bu ñu tibbe ca njiit bu mag ba nga xam ne moom mooy yàlla jox ko ko léegi nag nit ñi yenn saa yi dañuy ne kii du dootuñu ko déggal ndaxte nekkul di def la nga xam ne moom la ñu bëgg mais kàddu gi waxuñu loolu kàddu gi waxuñu ne déggal leen njiit bi wala toog respecté leen njiit bi bu dee mu ngi def li ngeen bëgg yéen déedéet bu dee li li yàlla wax mooy dañ ko war a déggal parce que amul benn njiit c'est-à-dire fonction bi boo xam ne mën na nekk te yàlla ci boppam tegu ko fa léegi nag nit ñi dañu war a dellu si ci seen xel ñu war a jàpp lii est-ce que waa ji deful li nga xam ne man moolu laa bëgg war na tax man ma def li yàlla bëggut loolu xalaat bi yépp foofu la xalaat bi yépp foofu la waa ji mën na bañ a def li ma bëgg man mais bu dee dafa def li yàlla bëggul yàlla dina ko lijjanti dina ko régler mais moom bañ a defam li ma bëgg man bu ma yóbbee mukk man ma tegg li yàlla wax ngir def li ma bëgg man som bopp pasteur waaw pasteur Balla ñun dañu am royukaay ñun chrétien ñun dañu am fu ñuy tibbee mooy téere bu sell bi nga xam ne ci la ñuy jàng sunu royukaay mooy Seydina Isa almasi bi Yesu Christ te Yesu Christ dafa dundoon jamono ju tar jamono ji mu dund mooy jamono yi nga xam ne ñoom seen askan bani Israël dañu nekkoon ci mbuumu ndootaange romain yi jiitu leen César mi nga xam ne moo doon njiit ba empereur ba noot leen kàngamu yahud yi jóg bés laaj ko laaj bu am solo liñ ci jublu woon nag mooy jaxase digganteem ak romain yi nga xam ne ñoo doon njiit ñu ne ko nax dañu war a déggal César wala dañu war a déggal yàlla ndax dañu war a jox César wala dañu war a jox yàlla mu ne delloo leen yàlla liy cëram te ngeen delloo César liy cëram jàngal leen foofu ne kat César am na cër goo xam ne ñoom dañ ko ko war a jox ba mu mat sëkk yàlla sunu borom am cër goo xam ne dañ ko ko war a jox ba mu mat sëkk xam nga Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist da daan fay lempo Balla pasteur Balla xam nga li mu wax Dëgg la.
injil ak ñu koy jàngal Dëgg da daan fay lempo da ka daan fay romain yi ndaxte jàppoon na ne kat lempo dañ ko war a fay bu ko njiit yi toppee ne bés sàngamkat la ñu war a fay lempo danaan wax taalibeem yi nga xam ne ñoo nekkoon ak moom rawatina kiñ daan wax Matthieu ne ko demal nga fay lempo kon jàngal nañu foofu ne njiit dafa am cëram yàlla am cëram te ku ci nekk dañ ko war a delloo cëram waaw te te ni nga ko waxee la gis nga wax bi ah, yemul rek ci di ko wax moom Seydina Isa waaye daf ko doon jëfe Ah, wax nga mbiru romain yi te bu la neexoon it pasteur nga yokk ci digganteem ak kilifa diine yi ci jamono yooyu moom Seydina Isa xam nga ni da doon ŋàññ seen taxawaay ni ñu doon lëndëmalee nit ñi ba mënuñu gis yàlla ni ñu doon tegee kàdduk yàlla côté ba mënuñu ko jàngal doomu aadama yi di toppatoo seen daraja ak seen am am ñoom kilifa diine yi waaye gis nañu ci téere bu sell bi ne li nga xam ne mooy cër ba leen yoonu Musaa joxoon moom Seydina Isa mosu ko tej même bu fajee nit ba nit ka wér da koy ne demal ca kilifa diine ba te nga def sarax sa nga xam ne moom la yoonu Musaa digle Aha.
waaw kon parce que même bu dee ni kilifa diine bi di doxalee moom Seydina Isa gis na ni méngoowul ak bëgg-bëgguk yàlla xam na ni fonction ba mu yore dañ ko war a respecté kon moom yemul woon rek ci jàngale bi waaye daf ko doon jëfee ñu koy ñu koy gis kon ndombal tànk yooyu nga xam ne amoon nañ ko moom Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist da ka daan wormaal da ko daan wormaal bu baax te moom nag wax nga ko mooy suñu royukaay ñun mooy suñu royukaay xam nga damay faral di waxtaan ak euh, suñu mbokk taalibe yi nga xam ni euh, seen xam-xam peut-être ñu ñu ngi ciy xuus àggaguñu fenn fi ma leen di faral di wax ni comme ni nga ma ko waxee rek ne ñun dañu am royukaay mooy Seydina Isa njiit bi ak nu mu mënta mel ñun dañu war a topp li nga xam ne moom la kàddu gi yàlla wax xam nga ñun taalibe Isa yi amaana benn bés ñu dem ci ñun dëkk ci village bi ñu bëgg bëgg a def benn ndaje pour yëgle suñu ngëm waxtaan ak nit ñi ci suñu ngëm chef de village bi ñëw ne du ngeen ko fi defee wala wala sous préfet bi ñëw ne du ngeen ko fi defee loolu mën na am mais loolu daf ñuy métti daf ñuy naxari waaye terewul bu fayuk impôt jotee dañu koy fay ndaxte Seydina Isa mooy suñu royukaay terewul bu sous préfet bi ne du ngeen ko fi defee duñu ko fa def pas parce que li mu wax jaadu na mais parce que dañu respecter fonction bi nga xam ne moom la yor te di ko ñaanal nag yàlla delloo ci xelam ba mu def li nga xam ne mooy li jaadu pasteur Ahmed waaw mu mel ne yàlla sunu borom mi ngi ñuy wax foofu ne ku nasaxal njiit yaa ngi nasaxal sa bopp ku nasaxal njiit yaa ngi dëkk yàlla sa borom ndaxte njiit yépp téere bu sell baa ngi ñuy wax yàlla sunu borom moo leen samp kon pasteur Balla yàlla na askanu Sénégal nekk askan goo xam ne dañuy wormaal njiit ni nga ko waxee sànq mu doon chef de quartier mu doon commissaire de police mu doon euh, président de la république mu doon leneen ak leneen ak leneen mu doon ci aada ak ci cosaan ak fu mu mënta doon bu dee njiit la yàlla nañ koy wormaal yàlla nañ koy jox cër gi mu yelloo yàlla nañ koy jox gëdd gi mu yelloo ndax tey loolu la yàlla sunu boroom xaar ci ñun te di wéy nag di leen di ñaanal ndaxte wax naa ko sànq ku nasaxal njiit sa bopp nga nasaxal ku nasaxal njiit yaa ngi nasaxal sa société kon yal nañu yàlla sunu boroom dimbale yal nañu yàlla sunu boroom dimbale ba ñu yar sunu bopp ba warmaal njiit ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist mbokki auditeurs yi fii la ñuy yemale sunu waxtaanu tey di sant yàlla sunu borom ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ te lépp liñ fi waxee lépp liñ fi waxtaanee yàlla na doon ay yool yàlla na doon ay yiw yàlla na doon ay ngëneel ci sunu dund ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ amin mbokki déglukat yi fii la ñuy yemale sunu émission maa ngi leen di sant ci déglu bi te di leen fàttali sunu téléphone di 77 074 35 35 yàlla na yàlla sunu borom wéy di leen barkeel tey wàcce ay yiwam ci seen kaw ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ mën ngeen jokkoo ak ñun ci 77 074 35 35.